dama bëggoon ci ay euh, kàddu yu gàtt wax li nga xam ne bi tey moom lañu mën a wax ci li fi xew euh, damay tàmbale rek di wax ne que élection yi am na et ba tey jii may wax ak yow parce que élection yi mu ngi am dimanche tey la àllarba sénégalais yëpp nangu nañu ne lépp dañ fa dem ci yoon coow amul wax amul xuloo amul sénégalais yi wane nañu fulla bu toll ni kenn ku ci nekk ca bés ba da jóg taxaw nga dem voté pare nga dem bi sa loolu mooy démocratie may wax ne système électoral bu sénégalais ni mu tëddee may na ci ndorteel la ba ca njeexteel la lépp lu fay am ñun bokk ci joŋante bi dañ koy fekkee duma wax lii xew avant damay wax lii xew bésu élection bésu élection bureau de vote bu ci nekk dafa am président assesseur secretaire représentant wu Sénat ak représentant de tous les partis politiques loolu mooy am Sénégal depuis 1992 su ñu defee élection ba élection yi jeex dañuy defar procès verbal procès verbal bi benn procès verbal la. kenn ku ci nekk ci parti politique yi dañ ciy am copie Sénat am ci copie suñu paree ñu dem commission départementale commission départementale proclamer les résultat du département suñu paree ñu indi ko au niveau de la commission nationale commission nationale it kenn ku ci nekk ci parti yi nga xam ne ni bi da nga bokkoon ci jongante yi di nga am sa représentant bu fa teew may wax ne dama dégg euh, ci bis bi ni ko suma rakk Ablaye Sow waxee ay kàddu yu jib su kàdd yooyu jibul woon tey duma wax ndax kàddu ya fa mu jógee ña ko wax dañu bokk ci commission nationale ñu teewe ko ma teewe ko ak ñoom kon suñu waxee te wax joojee ñu wax mu am luñ ci war a leeral faw ñu leeral ko dëgg nag olof moo koy wax kaani la ko sànni mu toxoñu dëgg gi ci am mooy ñaari fan a ngi ni commission nationale de recensement des voix et de proclamation du résultat bi nekk cour d'appel mu ngi daje parti Sénégal yi nga xam ne bokk ci coalition ñëpp a ko teewe amul benn parti bu fa nekkul euh, sama rakk di sama xarit di Déthié Fall bokk na ci ñi fa teewal yeewu askan wi man ak Ousmane Seye ñu teewal fa benn bokk yaakaar ñuy def suñu liggéey ñaari fan a ngi nii ñuy saytu élection yi ñu xool département yépp amul benn département tey pare nañu département yi am na lu ma ci mën a wax am na lu ma ci mënul wax parce que soo lekkee ak say nawle ngeen daje di waxtaan di tubaab di wax il y a un minimum de loyauté et dañ ko rompre ba nit génn wax ku wax nag ñu tontu la ak loo mënti wax soo waxee dëgg ñu tontu la dëggal la soo waxee safaan wa ñu tontu la weddi ko wax ji xool nañu procès verbalu département yépp xool nañu bu Dakar bu ñu xoolee bu Dakar ñu laaj est-ce que am na observation amul observation parce que ci procès verbal yi nga xam ne ne bi ñoo jógee Ndakaaru ci département wu Ndakaar muy département de Dakar département de Pikine département de Guédiawaye département de Rufisque et département de Kër Massar amul ñi nga xam ne ne bi ñoo nekkoon ci commission départementale yi yu def ay réserve kon ñun ñi fa teew defuñu réserve ñu ne Dakar département wu juróomi département Dakar yépp Yewwi Askan Wi mooy gagné wàll wàll amuñu benn luñ ciy wax may fàttali que Ndakaaru la coalition benn Bokk Yaakaar à peu près quatre-vingt-dix mille voix la wax la am coalition Yewwi Askan Wi am cent quatre-vingt-dix mille voix kenn werantewul muy différence su cent mille voix ñu ñëw Ziguinchor kenn werantewul ñu wax lépp jaar na yoon noonu ñu ko fa waxee la ñu wax département Sénégal yépp ba ci département diaspora amul benn werante ñu ñëw Ndar amul benn werante ñu ñëw Touba amul benn werante ñu ñëw Podor ñu dem maatam ñu jaar Kanel ak si Ranérou waa Euh, yeewu askan bi ne dañu bëgg xool procès verbal yi may wax ne bi ñu ñëwee ci kaneen ñu wax ba pare nga xam ne ne bi ñoo bokk euh, benn bokk yaakaar ñu bokk yeewi askan bi ñu bokk wàllu Sénégal ñu bokk bunt bi ñu bokk yeneen coalition yépp bu ñu ñëwee Kanel te kenn ku ci nekk ci ñoom teewee woon nga ba ñuy daje ci commission département bi ci procès verbal bi kenn deful commentaire commentaire bu ñuy def mooy rien à signaler mooy lépp jaar na ci yoon noonee mu amee Kanel noonu la amee Ranérou noonu la amee Podor noonu la amee maatam noonu la amee Dagana noonu la amee Ndar parce que loolu mooy lu noor soo ci génnee Bakel donc ñi leen fa teewal ci procès verbal bi dañu bind ni amuñu benn commentaire bi ñu ñëwee nga xam ne ne bi suñu toppoon ni liggéeyee xëy na tey liggéey bi mënoon na sotti mu am ci ñi fay teewal yeewi askan wi ñaar ñi leen fay teewal ñu ne dañoo bëgg xool procès verbalu kaneel yépp dañu bëgg xool procès verbalu raneeru yépp yu Podor yépp ak yu Matam yépp président bi ne leen mën ngeen ko xool mu woo ña fa teew ne leen indil leen ñu procès verbal yi ñu teg ko muy ay documents yoo xam kenn xamul nu mu toll mot na presque topp ñu tagal leen ko ne leen xool leen ñu ne est-ce que mën nañ ci am copie président bi ne leen yoon mayuma ma délivrer leen copie président ne leen yoon mayuma ma délivrer leen copie ñu ne est-ce que mën nañ ko photocopie mu ne c'est la même chose parce man mënuma leen ko délivrer délivrer ñaar la délivrer gratuit ou délivrer à frais su ngeen ko photocopier c'est délivré à vos frais et gratuit ou gratuit mënuma ko waaye may naa leen après midi bi yépp ngeen toog ngeen xool ñu woo ay gendarme ñu jël leen teg leen ko ci ñoom ñu xool xool nañ ko loolu moo ñu tardel su doon loolu amul kon tey du ñàkk ñu am résultat yépp waaye soo bëggee jël junniy document nga ni benn bu ci nekk danga koy xool ñu toog ñu suspendre leen bàyyi leen di leen xool loolu mooy dafa am leneen lu dul loolu amu fa ñu ne leen est-ce que am ngeen ay grief maanaam loo xam ay tuuma yu ngeen di teg procès verbal ñu ne gisuñu tuuma dañuy seet donc ñoom ba ñuy ñëw di toog amuñu lu ñuy xool maa ngi tooñ kenn ki sax nag xanaa yaay Colombo mu ne ma may Colombo damay def investigation damay seet ba mu sax utiliser benn mot anglais damay seet random mooy au hasard damay ñëw gisuma dara xaw ma ndegam am na waaye damay jël ay procès verbal au hasard pour seet ndegam procès verbal yooyu la am na faute erreur wala amul erreur xam nga loolu euh, dafa doy ñun coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñuy ñëwee ñu ne am na lu ñuy naqarlu la ñuy naqarlu balaa ñuy ñëw dañu indi procès verbal bi balaa ñuy ñëw dañu indi procès verbal bi parce que élection Sénégal parti bu ci nekk wala coalition bu ci nekk soo demee par force mu neex mu naqari su résultat yi pare dañ lay jox procès verbal gis nga tey jamono bi may wax coalition yëpp juróom-ñett lañu amul benn coalition ci coalition yi bokk ci élection yi bu amul procès verbal yëpp tous les procès verbaux de tous les bureaux de vote et de toutes les opérations de vote sont à notre disposition et à la disposition de tous les partis ku ko amul rek da nga fa teewul man tubaab tubaab yi nee nañu les absents ont tort kon loolu la leen président wax bi ñu waxee dañuy photocopie président ne leen le droit à l'information est un droit sacré et que le droit à l'information est un droit constitutionnel c'est la constitution qui vous autorise à vous informer et à avoir accès aux documents. Donc, ayez accès. Ils ont eu accès aux documents. waaye nag chacun a une copie avec lui loolu mooy la fa am kon leneen lu ñu wax lu dul loolu méngoowul ak dëgg te wax ne fii Sénégal sénégalais yi ni ko euh, sama rakk Ablaye soo waxee am nañu fulla bu toll ni tous les sénégalais on la capacité de comprendre de participer au scrutin de s'exprimer et d'attendre les résultats tey jii xam nañu lu xew xam nañu kenn ku ci nekk li nga am suba commission nationale voté na journaliste yëpp ñu teew pour ñu wax ñu proclamer les résultats et mënul am fraude parce que fraude amul fenn loolu mooy li ma amoon li nga xam bëgg naa ko wax dama koy wax rek di ko bamtu ci français ce qui s'est passé aujourd'hui la conscience des démocrates et de tout ce qui tient à la République et à la sauvegarde de la République. Nous savons tous, et les observateurs avec nous ont constaté que l'élection s'est déroulée dans une séquence contrôlée, que tout s'est passé à la fois dans le calme, dans la transparence et dans le respect de toutes les règles de la démocratie. J'ajoute que dans le système électoral sénégalais, au niveau du bureau de vote, les coalitions, les partis politiques ou les candidats sont tous représentés par le représentant. Et que à la fin des opérations électorales, chacun des représentants des coalitions a à sa disposition une copie du procès verbal. Et dans l'original du procès verbal, chacun des représentants a le loisir de mentionner ou de faire mentionner toutes les observations qu'il juge utiles. Ainsi, les élections se sont déroulées sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui et hier, la Commission nationale de recensement et de proclamation des résultats se réunie. Et très certainement demain, en euh, début d'après-midi, la commission va proclamer les résultats euh, provisoires de des élections législatives. Donc, les 46 départements du Sénégal et les de la diaspora ont de leurs procès-verbaux les procès-verbaux à chaque fois qu'un procès-verbal a été examiné, une des premières observations de la Commission nationale, c'est de vérifier s'il y a des observations qui ont été faites par les représentants des coalitions au niveau de la commission départementale. Et d'une manière générale, il n'y a pas d'observation particulière. Ainsi, dans la région de Dakar, dans toute la région de Dakar et dans ces cinq départements, Les euh, procès-verbaux ont été régulièrement faits, établis, transmis et examinés. Et il n'y a pas d'observation majeure de la part des représentants des partis. Il en est ainsi des euh, départements de Ziguinchor, de Bignona, de Oussy, de Bunkiling, de Kolda, de Goudomp et autres. L'ensemble de ces départements, pour l'ensemble de ces départements, les PV ont été examinés. Il en est ainsi également des départements de Tambacounda, des départements de Canel, des départements de, euh, de Hanerou, de Matam et de Podor. Et pour ces départements du Nord, y compris Saint-Louis, les PV ont été transmis sans absolument aucune, je dis bien et je pèse mes mots, aucune observation des représentants des différentes coalitions qui ont écrit pour rien à signaler. Absolument rien à signaler. Ce qui permet de dire avec forte conviction que dans ces départements, le scrutin s'est déroulé de la façon la plus transparente et de la façon la plus légale. Grande fut notre surprise au cours de la journée d'aujourd'hui, alors qu'on a examiné ce département, il n'y a pas de contestation majeure pour les autres départements, que des représentants de coalition, notamment de la coalition Yewi Askanui, le, Yewi Askanui, que les représentants de Yewi Askanui ont cru devoir faire une requête pour demander la communication de l'ensemble des PV des départements de Renéou, des départements de Matam, des départements de Podor. Ce qui a été fait. La Commission nationale à accepter leur requête en leur disant ces PV sont à votre disposition. Ils en ont demandé copie. Le président de la commission leur a rappelé la loi, là, au terme de laquelle, effectivement, ils ont le droit de demander à accéder à l'information, donc à avoir accès à ces documents à les consulter, à prendre des notes, à faire des observations. Mais la loi ne l'autorise pas à faire de copies. Alors surtout que chacune des coalitions a à sa disposition l'ensemble des PV, à la fois les PV des commissions départementales, y compris les PV de l'ensemble des bureaux de vote. Et que donc cette demande-là était assez surprenante. Malgré tout, le président les a autorisés à regarder et à, à, consulter, à prendre des notes sur l'ensemble de ces documents, ce qu'ils ont fait et ce qui nous a retardé. Parce que pour l'essentiel, toute l'après-midi, je dis bien toute l'après-midi d'aujourd'hui, en grande partie a été laissée à leur disposition pour constater les documents. Sinon, aujourd'hui, on aurait pu finir les travaux. On n'a pas pu finir les travaux parce qu'ils se sont évertués à consulter l'ensemble des documents, sans avoir de griefs particuliers. à un moment donné, ils ont dit que c'est par hasard, par random, qu'ils allaient consulter. Ils ont consulté et ils n'ont absolument fait aucune observation. Jusqu'au moment où je vous parle, aucune de ces coalitions n'a fait la moindre observation. Ils ont dit qu'ils feront leur observation demain à 9h. Le président leur a dit, faites vos observations demain à 9h, mais pas au-delà de 9h et je vous répondrai. Par conséquent, Cela veut dire que en venant à la commission nationale, il n'avait absolument aucun grief à formuler contre les PV. Et ils ont cherché comme des, des enquêteurs pour voir s'il y avait des, irrégularités. Ils ont trouvé, ils ont dit publiquement à la commission qu'ils ont trouvé trois procès-verbaux qui n'étaient pas signés. Ce cas est réglé aussi par la loi, par le code électoral. Quand il y a un procès verbal non signé, mais qui est dans une enveloppe qui a été scellée, ce n'est pas une cause d'annulation. Parce que euh, la commission a le droit euh, de faire la relation et de comparer ce procès verbal avec celui de la Sénat. Et si c'est conforme, même si ce n'est pas signé, ce n'est pas une cause d'annulation. Donc, euh, c'est juste trois procès-verbaux. J'ai entendu dire, je crois que euh, peut-être que mes oreilles ont dû siffler au moment où ça se passait, parce que ça ne me semble pas correspondre à l'exacte matérialité des faits. J'ai cru avoir entendu euh, qu'il y, aurait une vingtaine de procès-verbaux. C'est faux. Aujourd'hui, à la Commission nationale, le représentant de Yehu Askanui n'a fait état que de trois PV qui n'ont pas été signés. Mais trois PV qui n'ont pas été signés, ce pas une cause d'annulation, comme on le leur a rappelé. Et encore une euh, il n'est pas indiqué d'insister outre mesure sur la manipulation de l'opinion à qui on donne de fausses informations. Je rappelle, et c'est important, qu'il y a eu huit coalitions qui ont participé à cette élection. La coalition Bokk Gis la coalition NAO, c'est comme ça qu'on l'appelle, la coalition AR, la coalition Benno Bokoyakar, la coalition Buntubi, la coalition MPR, la coalition Wallou et la coalition Yao, Yewi Askanbi. Du point de vue de la loi et du point de vue, j'allais dire, même politique, il n'y a pas d'intercoalition. il n'y a pas, j'allais dire, d'unité de ces coalitions. Ces coalitions sont distinctes. Chacune de ces coalitions est allée recueillir les suffrages des Sénégalais. S'il y a une intercoalition Yao-Wallou, que reste-t-il des autres coalitions Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une intercoalition Benno Bokoyakar, MPR, AR, Yao et autres Non, ce pas exact. Donc, il faut que les Sénégalais soient informés juste. Au demeurant, et je le rappelle, un des leaders de euh, l'opposition a bien, d'une coalition, et pas des moindres, a dit, et tout le monde l'a entendu, je vous demande de voter pour la coalition Wallou. Et je crois que c'était leur tête de liste. Donc il y a la coalition Wallou, il y a la coalition Yewwi Askan la coalition Benno Bokk Yaakaar et les autres coalitions et ça c'est important et chacune des coalitions est allée collecter des suffrages aujourd'hui je ne trahis absolument aucun secret parce que la totalité et je dis bien la totalité des résultats est connue tout le monde le sait l'ensemble des départements ont vu le résultat publié dans la presse. Tout le monde les a, y compris vous, les journalistes, à la fois les auteurs et les historiens du présent. Et vous, en tant qu'historien du présent, chacun parmi vous peut aujourd'hui, sans risque de se tromper, dire exactement, tout au moins au niveau de, euh, du scrutin majoritaire, chacun parmi vous peut dire exactement ce qui s'est passé. Si vous êtes en mesure de dire exactement ce qui s'est passé, avec les chiffres bruts qui n'ont pas été redressés par la Commission nationale, à quelques exceptions ou à quelques chiffres près, vous êtes capable chacun de connaître avec précision le quotient électoral. Et en connaissant le quotient électoral, chacun parmi vous est en mesure de dire au niveau de la liste professionnelle quelles sont les performances et les résultats obtenus par chacune des coalitions. Par conséquent, il ne sert absolument à rien de chercher à manipuler les citoyens qui a fait un message précis. Les citoyens sénégalais se sont exprimés, que ce soit les citoyens de Ziguinchor, que ce soit les citoyens de Dakar, de Tambacounda, de Saraya, de Kaolack de Koumpentoum de Bakel de Podor et de Matam les citoyens sénégalais se sont exprimés et ont donné un message précis de ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent correspond avec précision à une majorité qui a été donnée confirmée à la majorité actuelle même si c'est réduit ça a été réduit et l'opposition a eu des performances mais des performances qui ne font pas d'elle un groupe majoritaire. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui, est, qui correspond à l'expression des citoyens sénégalais, de l'électeur sénégalais. On se soumet. Moi, en ma qualité de membre de la coalition majoritaire, mon souhait était d'avoir une majorité plus confortable. Je ne l'ai pas eue. J'ai une majorité. La majorité dans un système démocratique, c'est la majorité. Et j'ai une majorité qui n'est pas contestée. Ils le savent. Non seulement ils le savent, mais ils le savent au point de tenter de manipuler l'opinion en se présentant comme Ceux qui ont obtenu la majorité, ils savent qu'ils ne l'ont pas obtenue. Ousmane Sonko sait qu'il n'a pas la majorité. Khalifa Sall sait qu'il n'a pas la majorité. Ils le savent. Je les regarde les yeux dans les yeux. Ils savent qu'ils ne pas. S'ils ont la majorité, qu'ils nous disent avec précision quelle est cette majorité et comment ils l'ont obtenue. Ils ne le savent Moi, je dis que j'ai la majorité. J'ai la majorité parce que j'ai gagné la quasi-totalité des départements. Je les ai gagnés. J'ai perdu la région de Dakar, les cinq départements de Dakar. Je l'assume. J'ai perdu les trois départements de Ziguinchor. Je l'accepte. J'ai perdu Sédou. Je l'accepte. J'ai perdu Saint-Louis. Je l'accepte. J'ai perdu Mbaké. Je l'accepte. J'ai perdu Saraya. Je l'accepte. dehors de ça, j'ai tout gagné. C'est ça la vérité. Et vous, journalistes, vous êtes quoi? Vous êtes les historiens du présent. Vous êtes les observateurs des événements qui se produisent sous vos yeux. On ne vous demande pas la neutralité. Parce que c'est pas votre rôle d'être neutre. On vous dit simplement de dire la vérité. Et chacun parmi vous dit la vérité avec ces sensations. Certains ont des penchants, d'autres n'en ont pas. Certains ont des positions, d'autres n'en ont pas. Ceux qui ont des penchants, ceux qui ont des positions, ceux qui n'en ont pas, ont un seul devoir, informer vrai. Et informer vrai, aujourd'hui, c'est reconnaître que la majorité reste majoritaire, même si c'est étriqué. elle est majoritaire. Et il n'est pas question, il ne saurait être question. Le Sénégal ne l'accepte pas, les Sénégalais ne l'acceptent pas, personne ne l'accepte. On n'accepte pas cette souillure qui veut qu'on qu prenne possession de la conscience des gens pour travestir la réalité. On ne peut pas travestir la réalité. Avec tout le respect que j'ai pour mes frères de l'opposition qui ont fait un effort et à qui les, des Sénégalais, pas des moindres, ont fait confiance. Je respecte les Sénégalais qui ont fait confiance à cette opposition. Je les respecte. Parce que je n'ai pas plus de dignité qu'eux. Personne ici n'a plus de dignité qu'eux. On les respecte. On les respecte. Mais ceux qui ont fait le choix différent, un choix qui porte euh, sur la confiance qu'ils ont en la majorité et qui sont plus nombreux, cela aussi mérite de respects. Je demande à Ousmane Sonko, je demande à Khalifa Sall, à Détiefal, à tous, à tous les autres de respecter les électeurs plus nombreux, les électeurs sénégalais qui ont porté leur suffrage à la coalition de Bokar, comme nous tous nous respectons les autres citoyens qui ont porté le suffrage euh, euh qui ont, euh, euh, pour eux. Et c'est comme ça que vit la démocratie. Et dit ainsi, ils accepteront que nous avons la majorité, qu'ils sont minoritaires. Ainsi vont les choses. Nous sommes majoritaires, ils sont minoritaires. C'est ça le choix des Sénégalais. Merci. Merci de l'intercoalition. waaw waaw dinañu ko dinañu ko wax rek xam nga ni koy olof bi waxee wagg ak wagg ak mbagg ak tànk tànk loxo ak yoxo may wax ne ay nit dañuy ànd ànd bi nag mën na doon ànd coxeel ànd coxeel kii nag moom sama rakk la àndu coxeel la kii sama jarbaat la àndu cofeel la kii sama rakk la àndu cofeel la am na àndu coxeel ak ànd bu lalu ci yoon yoon moo wax ne kuy dem ci élection danga nga ciy dem ci sa jëmm sa jëmmu bopp yow dong yow kot yow rekk walla dangay am ay àndandoo soo amee ay àndandoo ngeen nekk benn ngeen nekk benn ngeen nekk benn say ñu ne élection yi passé passé gul parce que ñu ngi ci ñu ne ku bëgg bokk da ngay bokk ñu bëri bokk ñu jël ci juróom-ñett juróom-ñett yooyu la kenn ku ci nekk ab say la Benno Bokk Yaakaar ab say la comme ni ñuy takkee ak matt ak say li ci li ci bokk ëpp na ñaari téeméeri organisation yu ci bokk mu di ay kuréel yu ñuy wàññi yu bokk benn bokk yaakaar muy wenn yaa mu am ay kuréel yoo xam ne ne bi bokkuñu waaye bëgg nañu bokk li ñu boom ñu bokk aar senegal muy ñaar mu am ab kuréel bu tudd bokk gis-gis liggéey du benn parti du ñaar ñett ay kuréel yu bari la mu am ab kuréel bu tudd Yewwi Askan Wi mu am beneen kuréel bu tudd Wallu Sénégal Yewwi Askan Wi ñu ngi lëngaloo wër ànd bokk ci Ousmane Sonko ñoom xalifa Sall ay dëmbooj ak ñeneen Wallu Sénégal yéen a nga koy xam gis ngeen ko ab lay Ablaye Wade ko jiite Mamadou Lamine jàll bokk na ci Euh, abdul mbay bokk na ci ak yeneen ak yeneen nga xam ne bi PDS it bokk na ci mu am MPR mu am euh, naw mu am yeneen ak yeneen ba mu mot juróom-ñett tey jii ñuy wote ba ñu demee di tànn seeni xob di ko dugal ci urne kenn ku ci nekk ba nga demee ba ngay àgg ca mbañ gàcce ma da nga tànn xob bu nekk wa ilaa da ngay dugal xobu benn bokk yaakaar wa ilaa da ngay dugal xob Yewwi Askan Wi wa ilaa da ngay dugal xobu wallu Sénégal wala aar Sénégal kon wàllu bokkul ak bennoo bennoo bokkul ak Yewwi Askan Wi kenn ku ci nekk dafa am loo am tey jii may wax ne yéen a ko bind gis naa ko li may du ma wax la xew ca euh, commission national la la ñu bind yéen ci journaliste laay wax ñu wax ne ci li ma gis ñu ne euh, Wallu am na fukki député ak juróom-benn ci jongante bi nga xam ne ne bi moom la def ci gox yi muy scrutin majoritaire euh, benn bokk yaakaar am ci juróom fukk ak lu ci topp yooyu askan wi am fanweer ak lu ci topp boole wuñu li benn bokkoo yaakaar am ak li wàllu am boole wuñu leen kenn ku ci nekk ba nga demee bi wutik mat di taxani ba ngay ñëw say wa nga yenu mooy say wa nga am kon Benno Bokk Yaakaar daa yenu sayam Yewwi Askan Wi yenu sayam Wallu Sénégal yenu sayam aar yenu sayam kenn ku ci nekk nag ñii seen say diis na mooy wax dëgg neex yàlla nag euh, sayu Benno Bokk Yaakaar diis na gan na diis na ba nga xam ne ne dañoo wut ab ndax soo amul ab téeñ dina dina metti sa bopp yeewi askan wi am as téeñ waaye am nañu téeñ wàllu Sénégal ñoom am téeñ bu tuuti parce que li ñu am mën nañ ko yenu te duñu wut ab téeñ ñi ci des ni wër nañu ak matt ñi am nañu benn ak matt ñi am ak ñaari matt jarul ñu di ko ñu koy yenu dañ ko téye ci seen loxo waaye kenn ku ci nekk matt ma nga doon wër nga am ak say nga yenu kon man mënuma yenu sama matt yenu si martu ma sama moroom kenn ku ca nekk la nga am nga yore la nga am nag mooy li la sénégal yi